ngeen jaar ci pàppam jàppale ko nekk tey ay pàppam ñu bari dañuy yaakaar aussi taxawaay bi ngeen am ci moom moom ngeen di taxawee aussi ci côté Bambali ak Mandiaye. ñëpp ñépp Bambali sama doom la ça dépend nag ci ñoom Mapenda. Mm-hmm. ñoom xam nga famille bi dafa yàgg am ay problème nag ci dëkk bi benn famille rek ñu nekk Sénégal moom Sénégal ñoom rek ngay dégg Assane Ndiaye Mapenda Seck Eh, Ousmane Seck Thione Seck déedéet Ousmane Seck bi ñu bokkee Ramadan xam nga Kéba mosul bokk Ramadan man ak Ousmane Seck ñoo bokkoon Ramadan bu man ak Ousmane ñooy bokk néeg Ousmane di kilifa Kéba man ci wàllu aar Ousmane doon nit ku yaru booy nan jàng ci bu ñu gis détail yooyu noonu nanu jàng ci seen mag waali tey booy yi dañoo bëgg waali te waali dafa bëgg ay rakam mun nañu nekk ci beneen label hmm. te rawul sax àjjuma ñu dem reeree kër waali reeree seen kër mag loolu dafa neex famille Jackson gis nga meloon hmm. ñoo doon woyandoo bokk orchestre bokk lépp famille Michael Jackson bi Michael Jackson amee trois ans hmm. famille bi doxal mais ngeen bokk ndey ak baay ak yàlla li mu wax ci mbokk ngeen xiiroo di ŋaayoo di perturber sénégalais yi loolu fan lañ ko teg. ah mais dama ne waaw cër bu leen ko yàlla joxee. Mhm. da nga koy xam. waale dafa ñëw rafetal lépp sama rakk la. xale la des fois mu def yi fi xale parce booy la waaye nag kilifa la nag doon suma rakk doon suma doom. est-ce que mën nañ xaar Mandiaye ak euh, Bambaly def première partie Wally Seck barki Serigne Saliou Mbacké Bercy ñu ngi koy waajal ak yeneen ak yeneen te ni ñëw man maay Thione Seck foofu Ramadan Bambaly dina ñëw Mandiaye dina ñëw ah, loolu neex na te dinañ def album boo xam ne Wally trois morceaux Mandiaye deux Bambaly deux man maa koy cotisé bu nu topp mag ñi ak yenn affaire yi bëgg leen a jaxase Ousmane Seck xaw ma fan la nekk léegi sama waay la. dañ doon bu ñu demee tukki sax dama koy dañ doon bëre ma koy daan cër bi Ousmane joxoon Thione Seck kenn musu ko jox dégg na hmm. nanu génn ci yooyu. Bambali ak Mandiaye samay doom lan nan dem cax ci label Youssou Ndour nekk fa waaye terewul bu ma jotee ñu dem seen kër mag lekk cere mbokk ku ko fonk dangay dem àjjana ku tas mbokk. ndax ay affaire yu musique yàlla rëbb na la da nga wax ji ñuy xuloo ñëpp ban demee ba nekk ay mag dañ ko regretté parce que boo nekkee mag yàlla da la commencé woon erreur yi nga def yëpp dañ bàyyi loolu Keba na gën a defaraat toogaayam sénégalais yi bëgg nañ ko nit ñaa ngi ñëw soiréem affaire baa ngi nice euh, ñi koy tëggal ñëpp samay rakk lan ñu ci bari sama doom nga fa maas ak sama yeneen booy booy yu bëgg ma moom fu ma teg producteur bi aussi xamante ngeen maam Cheikh Mbaye. maam Cheikh Mbaye mooy kan. moom mooy moom moom la ci keebaa la nekk léegi labelam. non xaw ma xaw ma. ko xaw ma ko ok maa ngi nii am benn contrat boo xam ne xaritu Thione Seck moom ko signé loon Thione Seck ne ko waaw bu boo kiiyee rek ñu tëgg ko maa ngi nii bëgg ko jox ma ne ko kaay ma tëggal la ko. Mhm. kaay ma nga ñëw man Kéba ak groupe ma yóbbu leen Genève. Mhm. mais avant tout bu ma amee ñetti dat ñaar laay jox waale benn bi ma jël su ma neexee ma jox waale ñaar benn bi ma jox ma walla wala bambali wala keebaa bu fekkee keebaa nangu na mais keebaa il faut mu xam ni ñun dañ ko jiitu ci yëf yi tedd ci lekk ci loo xam ne moom lekk gu ko ci xam seen taxaw façon seen bu ne ànd ak Youssou Ndour ak Baaba Maal ak Omar fu ne ci àdduna bi ànd ak magam bii tey yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ko àjjana fu ne na na na respect bi gën a dox moom sax nit ku baax la comédien la sax boo xoolee dama naan man buy defay affaire dama koy xool di dee rek parce que dama lay parce que Kéba dama ko jàppoon comédien quoi mais nag yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci li mu ne nit ñu jox nañ ko bopp famille la quoi ñun famille la